mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu ngi ci syndicaliste yi waaye itam ñu ngi ci li ñu dëgmal mooy fukki fan ak ñaar ci weer décembre wi nga xam ne ci lañu ñu nekk nag euh, di door a teru fas yéene jëm ci élection yoo xam ne ni kenn ku nekk da am loolu ñu la représenté su ko defee 10 pour cent boo ko amee ca ngay mën a jàll bu gouvernement bi di wax mën a wax ak yow coow li nag bari tey nag ñu dalal fi Cheikh Alassane Sène bi nga xam ne kon cela veut dire que bee am na certainement. ndax bu A bi yow yaa ko jiite fi mu toll nii yaa ngi woon ci campagne mais nag syndicalistes yi dañoo bari problème bari ay jafe-jafe ñee ngay coaliser wu fële ñee ngay wax lële ñu tàmbali woon affaire yi 2011 euh, ba léegi yëf yi am ay problème bon yéen nag yéen a ngi ci àll bi di mbëkk di di def seen campagne ñi ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay El Hadj Maodo Faye. Euh, di la sant wi de moo ko xaw yàq rek ndax xam nga. Euh, sa sant yi moom baaxul ci jigéen euh, waaye nag euh, sama yaay fay la sant. Ah, voilà voilà tu as vu xeñu mais voilà dama ko daan faral di toj na ko yaay sa sant yu baaxul ci jigéen te mu ne ma baax na ci kër guy tàkk. wallaay baax na ci ku liggéey ba weer dee wala bu ñu fekkee dañ laa ameel bor it bëgg nga ñu fay la. yomal xiyam nga jël nuyu di la sant de am mbégte lool ci invitation bi. Mhm. di nuyu directeur sud ak sama mbokk waa Guinguinéo yu ma fi fekk eh, ñoom Alioune Badara Socé. Mhm. et tout le personnel. yaakaar ne aussi waxtaan wi dana am njëriñ eh, ci bi ak auditeurs yi ak auditrices yi jublu ci biir Sénégal ak ci bitim réew. d'accord Cheikh Alassane Sène yaa ngi ci campagne. Mhm. est-ce que ci campagne bi ngay def fan ngeen demagul. est-ce que yaa ngi rencontré ay jafe-jafe lan moo xew pour le moment xam nga dañu ndëgmal élection de représentativité des centrales syndicales mhm. yàlla dafa def avant boobu nga wax mhm. en ay enquête sociale moo amoon enquête sociale yooyu bi mu amoon ñu ngi ko defoon au sein des entreprises bi ñu ko defee ki nga xam ne mooy CNTS suivi de l'UNSAS suivi de la CSA de l'UDTS bi nga xam ne Alioune Sow moo ko jiite woon. Mhm. bi ñu demee ba 2011 processus électoral ñu ne donc loolu dañ ko defoon dans le secteur privé. Mhm. public bi ginnaaw ay travailleurs lañu. il faut ñu organiser leen ay élections de représentativité regroupant les travailleurs nekk ci public ak privé bi ñu koy organiser c'était en 2011 ki nga xam ne moo commencé woon processus bi ndax dafa yàgg mu nekkoon ministre du travail et de la fonction publique mooy Zakaria Diaw. Mhm. def na. ki nga xam ne ça a été une patate chaude moo ko organisé ba génn ci ñu koy nuyu au passage muy Innocence Ntap Ndiaye bi mu ko organisé en 2011 bi ñu demee ci élection yi jongante yi ki nga xam ne moo ñëwoon en tête c' était la CNTS bi Modou Guiro jiite suivi de l'UNSAS bi Mademba Sock jiite suivi de la CSA bi nga xam ne Elimane Diouf ko jiite suivi de la CNTS FC bi nga xam ne Cheikh Diop moo ko jiite mhm. ñeent ñooñu bi ñu jàllee ki nga xam ne par exemple mooy euh, euh, Sidia Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu moo ñëw en cinquième position euh, la FGTSA bi nga xam ne maa ko jiite ñëw en sixième position sur les quatorze centrales bi ñu demee ba en 2017 c'est le même classement mais yàlla daf aussi quatre centrales yooyu bi ñu jàllee donc Sidia Ndiaye topp ci avec cinq virgule neuf pour cent ñun ñu ñëw ci avec à peu près cinq pour cent ci kaw loolu. il faut que ñu xam njëriñu élection yi élection yi dafa am importance parce que boo gisee ñuy wër le tour du Sénégal ces élections mooy permettre au travailleurs yi nekk public ak privé ñu tànn ñi nga xam ne ñoo leen di représenter dans le conseil d'administration de l'IPRES dans le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale au sein du conseil économique social et environnemental au niveau du haut conseil du dialogue social et également au plan international et mieux ñoo ko normé donc ñu pour que képp koo xam ne dix pour cent nga am état bi dañ la subventionné pour un montant global de six cent millions. ah bon de 2011 à nos jours ces quatre centrales yi ma lay wax ñoom la état bi di subventionné six cent millions. foofu mooy mooy mooy CNTS. c'est Giro ah, Mademba Sock UNSAS. CNTS FC. foofu sax foofu sax on a bafoué même les les règles de la évidemment foofu ñu ngi demande état bi ñu corriger ko El Hadji parce que lu tax parce que si la majorité a des droits la minorité aussi a des droits de telle sorte que mënoon nañu par exemple def une répartition proportionnelle nga xam ne donc ñi participer aux élections su ñu jëlee les centrales syndicales les plus représentatives ñu jox leen un pourcentage jël les moins représentatifs parce que ce sont des organisations constituées wu légalement am seen récépissé di faire face à leurs dépenses fixes de fonctionnement di fay ndox di fay courant di fay téléphone di fay siège comme ni ñu koy defee ci subvention yi ñu joxe première mai parce que première mai état bi dafay accompagner les centrales syndicales pour une enveloppe de cinquante millions ci kaw loolu ñi nga xam ne dañoo bokk ci élection ak bokkuñu woon ci ay élection de représentativité yi am cinq cent mille ñi ci des ñi am un million ñi am un million dañ ko def bokk c'est subvention annuelle bi état bi di jox. waaw mais très bien. mais fii tel n'est pas tel n'est pas le cas mais ñi nga central yi nga wax nii CNTS. Mm. CNTS FC UNSAS eh, bu ñoom Mademba Sock. Mm-hmm. ak CNTS FC. oui bu Cheikh Diop bu mu nekk quatre pratiquement. wala trois moom CNTS. quatre la quatre la UNSAS CNTS CNTS FC. Mm-hmm. ak ban. ak euh, CNTS. oui CNTS FC. oui UNSAS. ak CSA voilà ñii. bu fekkente ne ñoo ñoo am majorité bi. Mhm. jàngalekat yi wala je ne sais pas yi watee leen mais c' mais rien n' est plus normal que ça bu fekkee ñoom ñu am majorité ci élection lañu dem ñu watee leen. waaw mais mais léegi lan ngeen tax bu ngeen bëggee de tendance bi renversé wu. Mhm. mais bate campagne essayer de les sensibiliser. mais loolu moo tax El Hadj Maodo xam nga man yaa ngi ma fekk en tournée. Mhm. j'ai fait Mbour. j'ai fait Fatick. j'ai fait Foundiougne. j'ai fait avec ma délégation on a été à Nioro war a dem Casamance bi nga ma invité ma ci sant di la ci gërëm ci laa replier ñëw te damay continuer parce que travailleurs yi ci seen wàllu bopp xamuñu importance su élection yi ñoom ñoo am majorité mais quelle majorité. ah bon parce que en réalité en 2011 bi ñu ko organisé le taux de participation était de 32 pour cent bi ñu ko organisé en 2017 le taux de participation et de vingt 28 pour cent. donc il y a 72 pour cent des travailleurs yoo xam ne ils n'ont pas participé à ce scrutin donc ces secteurs généraux de centrales syndicales même s'ils sont légaux ils ne sont pas légitimes hmm. pourquoi parce que 72 pour cent des travailleurs n'ont pas voté pourquoi ñuy wàcc sur le terrain c'est pour informer les travailleurs sur les enjeux et l'importance de ces élections là hmm. surtout des centrales syndicales yoo xam ne ñu ngi fi nekk depuis 98 à nos jours ça fait 25 ans 25 ans 25 ans je dis bien ñoo fi nekk en 2011 ñoo fi nekk en 2017 ça fait 13 ans ils veulent remplir encore 5 ans ça fait 18 ans pour représenter les travailleurs c'est pourquoi il est de notre le terrain rencontrer les travailleurs informer leen sur les enjeux de ces élections là et à ça El Hadj Maodo il y war a am en 2024 où sont les candidats ils sont sur le terrain. waaw d' accord di battre campagne am seen programme. mais d' accord mais. en réalité par rapport à ces élections sociales il n'y a aucun de ces candidats ku nekk sur le terrain. ils se réfugient derrière les secrétaires généraux des syndicats surtout des syndicats d' ndax xam élection yi kenn mënu ko sans les enseignants pour que les mais ils n'ont qu'à faire tomber les masques ku nekk candidat yaa a dem battre ta campagne parce que les candidatures ce sont des candidatures mais dañ kon dañuy làqatu dañuy làqatu kon ci ci turu syndicat bi ci turu seen. non c'est-à-dire centrale syndicale dañu am des syndicats affiliés. ça nekkul des organis des élections yoo xam ne sa concerne les syndicats d'enseignants ce sont des élections des centrales syndicales. oui d'accord. les travailleurs. Mm-hmm. donc à je pense que dañu war a dem ci jongante le 12 décembre. waaw ñi nga xam ne dañoo nekk candidat depuis 2011 ñu ñuy représenter dans les institutions. ça fait 13 ans ils doivent faire le bilan de leur mandat. dëgg la wala du dëgg bu la falee ngay représenter travailleur dans les institutions bu ñu demee ba war a def un bilan ba war a demaat ci jongante tu dois présenter un bilan le bilan de tes différents mandats avant ngay dem à la conquête des kooku kenn waru la ko war a defal yow yaa ko war a defaral sa bopp pourquoi parce que bulletin de vote yi ñuy di ñuy yi ñuy imprimer sa photo moo ci naan fàng yow en tant que candidat. mais mais dafa sa bopp campagne dafa am dafa am dafa am ñëmul photo wala yow sa photo nga ci peut-être. sama photo tous les candidats. Mhm. pratiquement seen photo day nekk ci bulletin yi sauf la FGTSB. et. Eh. FGTSB logo rek la logo moo fay ne. xam nga lu tax waaw lu tax. xam nga organisation bi ñu organisé élection yi année yi yëpp 2011 ak 2017. Mhm. yàlla dafa def à part ces quatre centrales Sidya moo ñëw en cinquième position man ma ñëw en sixième position. Mhm. bi loolu amee ñu xam ne mbooloo mooy doole ma waxtaan ak moom yal na ko yàlla yërëm te yeexee ñu. Sidya Ndiaye bu FGTSB. waaye bu FGTSB. ndax xam nga ne. centrale bi ki nga xam ne moo ko jiite woon mooy feu Oumar nekkoon adjoint au maire de Dakar député à l'Assemblée nationale yal na ko yàlla yërëm te yeexe ñu mhm. ci biir centrale boobu récépissé bi mi ngi nii wan naa la ko Sidé Ndiaye moo doon trésorier national ou je fédération bi mais mu génn conformément à la convention 87 et 98 de l'OIT sur les libertés syndicales kum neex mën nga te organiser wu am say liggéeykat ay secteur d'activité yu bari nga toog réunir créer seen syndicat mais malheureusement ñoom ba ñu génnee aussi demuñu constituer seen dossier pour am une reconnaissance juridique parce que euh, doom mënul juddu ñaari yoon récépissé bi nga xam ne moom la Omar Tall euh, nekk secrétaire général ma remplacer ko récépissé boobu ñun moom la ñu détenir mais bi loolu passé ñu xam ne mbooloo mooy doole ma waxtaan ak Sidya Ndiaye ñu def une coalition électorale protocole d'accord baa ngi nii war naa la ko ñu ngi ko signé le 21 mai def conférence de presse Café de Rome ginnaaw fii coalition amu fi ce sont des candidatures individuelles de centrale ki nga xam ne mooy personne morale centrale bi moom la ñuy def ci bulletin bi. Mhm. photom la ñuy def ci bulletin bi. Mhm. ma ne ko ginnaaw yaay suma mag. te ba ñuy dem élection yow yaa ma jiitu nañ signé protocole d'accord ma renoncer à ma candidature nga jiitu ma topp ci mais il faut que ñu normer ko devant toute la presse bu yàlla defee ñu qualifier lépp luy subvention ñoo koy bokk. lépp luy représentation dans les institutions ñoo koy bokk mu ne ma d'accord ñu signé ko ma signé ko suñuy plénipotentiaire signé ko ñu def lettre adressé ko au ministre du travail lettre baa ngi nii war naa la ko mhm. pour leur faire part de notre coalition élect même bi nga xamee ne ñu ngi def par exemple comment dirais-je l'élaboration du plan national de renforcement sur le dialogue social document bi ñu présenté à la présidente du haut conseil dialogue social c'est un document commun daf ko signé ma ko bi yàlla defee par exemple bu wàññi ko déposé woon na candidature pour ces élections là ah yàlla def Genève la ma fekk à la conférence internationale du travail à Genève bi ma demee mu gaañu ah bi mu ñëwee nag li naan sàmba mënul kanamam mën gannaaw fi mu ne aujourd'hui au niveau de la FGTSB buñ ko waxee buñ ko waxul il y une guerre de succession ah bon ki nga xam ne mooy Mballo Dia Thiam nekkoon secrétaire général du SUTSAS il se déclare secrétaire général de la FGTSB ki nga xam ne mooy Moussa Sissoko bi nga xam ne mu diriger UDTM syndicat des municipaux bi nga xam ne moom la comment dirais-je Sidya Ndiaye dirige dirigé woon sa déclare secretaire général par intérim te une organisation mënul am ñaari secretaire généraux te fi mu ne élection yi ce sont des candidatures individuelles bulletin bu nekk photo ki nga xam ne mooy porter le mandat les mandats en cas de qualification de cette centrale kooku la photom di nekk ma ne la commandé ci bulletin quand le ministère du travail les a interpellés pour que ñu changer photo bi ñuy mbiccoo mbaalo de telle sorte que bulletin bi du am photo kooku même bu ñu qualifié woon. kon yow kon yow kon yow c'est illégal c'est c'est c'est alors même bu qui va porter les mandats bu ñu nax liggéeykat yi au moment où toutes les candidatures centrales syndicales yi dem en compétition yépp seen photo moo fay nekk ak tour secretaire général bi ak fonction bi CNTS turu Mody Guiro moo fay nekk ak photom UNSAS turu Mademba Seck moo fay nekk ak photo ndax Mademba Sock koy koo demee ma ne la CSA Elimane Diouf moo fay nekk ak photom soo demee ma ne la CNTS FC xam ne mooy Cheikh Diop la fa turam nekk ak photom ñeent ñooñu ñoo fi nekk depuis 2011 bu fekkee travailleurs yi d'accord nañ ñu nekkaat fi pour cinq ans muy 18 ans ñoom la ñuy voteel man sama centrale FGTS A sama tur moo fa nekk ak sama photo mais pour FGTS B amul photo logo rek lañ fa. mais mais mais le pourquoi. mooy li ma la wax guerre de succession la. moo tax kenn kenn nangu la jiitu mais c'est terrible. kenn nangu la jiitu pëccëxoo la léegi nag li ma leen wax ne leen je lance un appel à mes camarades yi nga xam ne ñoo nekk au sein de cette centrale ki nga xam ne mooy Sidya Ndiaye ne mérite pas ça il est parti les armes à la main je pense que. Hmm. dañoo nekk centrale yoo xam ne dañoo bokk papa te bokkuñu yaay ñoo bokk kër gi. moom ñu ngi woon ci dynamique pour aller vers une unité organique yàlla daf na man centrale bi ma jiite dañu am une affiliation internationale mhm. je suis membre du conseil présidentiel de la fédération syndicale mondiale di leen di représenter à l'UNESCO c'est une organisation qui fait millions de travailleurs à travers le monde entier même pas une semaine lañ organisé un congrès mondial des femmes de la fédération syndicale mondiale ici à Dakar avec la présence de notre secrétaire général ma leen ñëw leen mbooloo mooy doole ñu liggéey ensemble su ñu amee victoire cette victoire sera dédiée à feu euh, comment dirais Sidya Ndiaye Sidya Ndiaye ne mérite pas laisser une centrale syndicale ñu jógee fi ah muy am ay guerre de succession ñuy nax liggéeykat yi di présenter un bulletin boo xam ne amul kenn ko mën a ab train bu amul bopp du dem nañ waxante dëgg bateau bu amul capitaine du dem. ok mais pour centrale syndicale bu dem à des compétitions amul njiit amul tour amul fonction amul photo. kooku bu demee bulletin it li wóor ba wóor bu ñu demee avec un simple logo bu en cas de victoire ma ne la la bataille judiciaire a démarré. d' accord bala nga dem ci bataille judiciaire boobu di de porter plainte ci yoon. Mhm. yéen seen seen léthargie bi mooy tax. yeneen syndicats yi gën a mag di gën a am doole. waaw non parce que bu ngeen taxalee koo koy gars yi. ah mos que ci campagne bi ngeen jëm a. campagne bi contourner la. oui. xam nga il est bien vrai que ci campagne lañ jëm. mais je peut dire que. yéen ngi ci campagne bi euh, déjà. non ci lañ nekk sax mais li mu la mën a xamal mooy ces centrales syndicales traditionnelles. Mhm. Euh, du ma ne defuñ fi dara. mais en réalité euh, def nañ li ñu mën lépp mais ils ont des limites xam nga lu tax ma wax ko. Mhm. soo xoolee tous les syndicats professionnels même ñi affilié wu ci ñoom ñoo porté leur propre combat ba mu am acquis ma jël kaaw enseignement. Mhm. les syndicats d'enseignants ñoo xeexal seen bopp. ba bu ñu amee amélioration salariale kenn fekk si wul benn centrale syndicale fekk si wul dëgg la wala du dëgg. jàngalekat yi ñoo xeexal seen bopp. ñoo xeexal seen bopp ce sont les syndicats d'enseignants ñoo xeexal mais ñoom fa ñu affilié fekk si wuñu leen ci xeex bi bi ñu leen di menacer fii pour de radiation mais kan ban central moo jóg wax ci kenn benn neel benn. Mhm. les travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la santé bu ñu demee ba xeex ba am yenn ak yi ñoo xeexal seen bopp dëgg la wala du dëgg. ah ñoom Balla Gueye tam boobu fu ne woon. waaw ah, moom moom laa la wax ñu nga fa ce sont des syndicats professionnels mais centrales yi laa la wax. ok waaw je comprends yow absolument mu ñëw ëmb ces tous ces syndicats là. d' je suis d' ñooy wax di def di dindi au nom des travailleurs. xam nga yooyu bu fekkee dafa am ay syndicats sectoriels ñoom ñoo war sax porter le combat. normalement parce que ñoo leen njabootee. Mhm. kii mooy borom kër gi xale yi ci biir ñoo ñekk njaboot ci combien combien d'années la ñuy toog di xeex ba léegi benn centrale fekk si wu leen ci le secteur primaire aujourd'hui ñu ngi xeex pour une amélioration salariale pour que ñu am indemnité de logement di def ay grève fi mu ne dañoo dem ba toll foo xam ne ku amati tawat fan ngay dem danga naan ana siège Guy Marius Sagna fan la ne nga dem fa les activistes ñoom nga ñoom porte sax le combat des travailleurs ñu def grève de la faim alors que les les de la justice par exemple mhm. aujourd'hui mhm. dañoo affilié wu ci centrale mais ñu ngi xeex pour un problème de statut pour les greffiers ku leen ci fekk des accords qui sont signés et qui n'ont pas été respectés en réalité syndicats yi di ko xeexal seen bopp où sont ces centrales syndicales là ils ont brillé par leur absence et ils attendent maintenant à ce que des élections viennent ñu seet surtout les syndicats d'enseignants ñu ne leen dam leen au front xeexal leen ñu benn candidat parmi ces candidats warul ci Sénégal ñu bëgg a instrumentaliser seen militants yi au niveau de la base ne leen voté nga xam ne ñu ngi fi depuis quatre-vingt-dix-huit depuis pour ñu remplir waat pour un mandat de cinq ans mais parce que xam nañu ne ku ci nekk yaa ngi rap rap di wut ay syndicat d'enseignants pour ñu soutenir la xam nga lu tax. Mhm. en 2011 71000 votants ñoo amoon en 2011. 71000 71000 votants sur les 71000 votants. Mhm. boo xoolee fi mu ne nii actuellement les enseignants font plus de 100000. qui gagne ces élections qui gagne ku am le soutien de ces de, de des enseignants tu gagnes ces élections là. mais je voudrais dire quand un secrétaire général de syndicat d'enseignants demande à ce que ces centrales traditionnelles ñu soutenir leen pour ñu remplir waat mais ils n'ont qu'à donner les raisons ndax ba ñuy xeex ndax ñooñu ñëw nañ nga toog ci kaw daal di joxe ay mots d'ordre ne samay militants au niveau de la base il faut appliquer fermer les yeux fermer les oreilles fermer la bouche et soutenir ces gens la pour que ñu pour pour assurer la continuité. muy centrale euh, yi fi nekkoon ay CNTS ay UNSAS ay. pratiquement les syndicats d'enseignants même bu fa affilié wul ñu ci bari. pratiquement ils ont donné des mots d'ordre au niveau de leur base te l'action syndicale El Hadj Maodo c'est de la base au sommet. oui bien sûr sa bureau national sa conseil national joxe un mot d'ordre ne léegi je soutiens telle centrale te motiver woo ko demande à la base ñu suivre ko te même les candidats sax ñoom déplacé wu ñu dem sur le terrain mais je pense que ces candidatures ce sont des candidatures individuelles ce sont les candidats euh, eux ñoo a wàcc terrain faire

pour que le taux de participation soit élevé parce que aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national il y a 315 638 électeurs inscrits présentement ñoo war a dem à ces élections pour le moment pour le moment non amul pour le moment c'est définitif parce que. ah d'accord d'accord c'est c'est c'est fermé comme on dit. waaw douze centrales ñooy dem en compétition. Mhm. fi mu ne actuellement les préfets des départements ñu ci bëri élaboré nañu en rapport avec les représentants des syndicats la carte xam nañu bureau de vote yi am na ci préfet yoo xam ne nommé nañu sax déjà les présidents des bureaux de vote les assesseurs les secrétaires syndicats yu bëri aussi déposé nañ seen représentant au niveau euh, des des des bureaux de vote c'est la raison pour laquelle par rapport à ça El Hadj Maodo xam nga booy dem aussi campagne électorale il faut partir avec un programme. bien sûr. mais malheureusement mes concurrents n'ont pas de programme ñun rek ñoo ci ah, lu tax amuñu programme. amuñu ko lu ñuy wax. yow da ngaa jàpp ne léegi ils ont atteint leur sommet euh, jeexatuñu. dama ne la mooy li ma la wax. laction action syndicale ne se limite pas à la revendication. qui dit le syndicalisme dit le social dëgg loolu du dëgg. c' est clair. c' la raison pour laquelle aujourd'hui dañoo toll ci jamono joo xam ne au moment où dañoo war a assister à une baisse conséquente des prix des denrées de première nécessité et des services de consommation on assiste à une augmentation ceeb bi yokku diwlin ji yokku. Mhm. ceeb bi yokku. Euh, euh, comment lépp suukar ak yëpp. suukar yokku. aujourd'hui nit ñaa ngi xeex fi mu ne nii avec le le euh, les les consommateurs les consuméristes fi mu ne actuellement ndox mi yokkul ak courant bi ak téléphone bi waaw loolu bu yokkoo mu am des accords signés qui n'ont pas été respectés un licenciement abusif au sein des entreprises yoo xam ne ma ne dañoo dem ah comment dirais-je am gain de cause devant les tribunaux on tarde à appliquer les décisions de justice aujourd'hui soo demee au sein des entreprises les conventions collectives interprofessionnelles dama dans le secteur de bonneterie les conventions datent de 1961 ils sont obsolètes ñi nga xam ne dañ fa nekk ay liggéeykat ñu war leen a defal une classification defuñu ko salaire yi ñuy jugee ci entreprise bi presque moom la ñuy retraité et ceci est valable aussi au niveau véritablement du euh, dans le secteur agricole aujourd'hui je te donne un exemple prenons le cas des décisionnaires xam nga enseignants yi sax ñoo ci gën a bëri sax lu ñuy wax mais en réalité ça concerne tous les agents de l'État yi nga xam ne dañoo nekk ay agents de l'État donc am seen examen professionnel ñu reclasser leen mais bi ñu leen di reclasser teniruñ compte de la date d'admission à l'examen professionnel on a tenu compte de la date de signature à cause des lenteurs et des lourdeurs administratives te bari na ci enseignants yi. d'accord mais yow. Ah, léegi ñooñu li ko war a ñu ko war a régler mooy ñi nga xam ne ñooy parler de agir à notre nom au nom de tous les travailleurs du Sénégal. d'accord ñun nag suñu programme nag El Hadj Maodo. oui c'est un programme logement nous sommes en train de réaliser 3000 logements à Thiès les travaux ont déjà démarré pour les travailleurs. ah bon de telle sorte que je pense que booy soutenir un candidat aussi le candidat doit te présenter au programme. mais malheureusement parmi mes concurrents ñun rek ñoo ci am programme. yéen ma jaaxal ma yow sa concurrent yi nga xam nga da ngaa tuddee jiite FGTSA. am beneen bu tudd FGTSB. léegi lu andi loolu. li ko indi mooy li ma la. ça veut dire que ñaari syndicat ñu ngi dem ci élection ñaari central yoo xam ne même même même nom bi bon c'est vrai que A ak B moo leen diviser. effectivement foofu mooy li ma la wax. gis nga récépissé bi nga xam ne doom mënul juddu ñaari yoon le récépissé de la FGTS benn la. mooy bi nga moo ko jiite mooy Oumar ki nga xam ne mooy Sidi Ndiaye était le trésorier Oumar Tall moom man mi maa ko remplacé. normalement ñële ñële kon nu ñu def ba am benn bi kon. non benn bi lañ déposé c'est le même récépissé mais doo mënul juddu mais en réalité ginnaaw dañoo trouvé woon une jurisprudence en mille 2011 et en 2017 bàyyi que toutes les deux centrales dem. Mhm. yaa ma dégg looloo la ñu appliqué ba léegi. c'est que ñoom bi ñu génnee mais mënuloo nekk ci kër ba pare di génn kër gi yóbbaale kayitu kër gi mënul ne doo mënul juddu ñaari yoon ba nga xamee ne ñoom génn nañu dañoo waroon a dem def seen assemblée générale constitutive. wut seen i seen règlement intérieur seen PV assemblée générale déposé au ministère de l' intérieur ñu jox leen récépissé mais mënoo nekk ci kër ba pare génn fa yóbbaale kayitu kër gi mënul ne. loolu moo indi cette situation là ginnaaw nag c' est un consensus bu ñu trouvé woon en 2011. Mmh. trouvé ko en 2017 ñaari centrale yépp ku ci nekk dem na ci moo tax ñu bàyyi cette fois ci ñu déroulé mais li nga xam ne mooy nouvelle donne bi pour la première fois ñu dem ay élection mu am bulletin boo xam ne ça ne porte pas le nom du bi amuñu ko xam. ah bon amuñu ah, ka mais logo bi. mais kan mooy candidat récépissé euh, bulletin boo xam ne fo euh, kii rek moo ci nekk nu ñu ko waxee logo. Hmm? ah bon logo rek moo ci ne di. on ne sait pas. mais mais mais il y a un il y a un candidat nommé peut-être koo xam ne. amul parce que dans bulletin du am tour du am fonction. parce que bulletin yépp ku ci nekk dañuy def fàng le tour du secrétaire général daf fonction syndicale daf photom mais yéen loolu mu leen ko dénoncé ci ci autorité compétente bi. non non non c'est-à-dire l'autorité en tant que telle ñoom mënuñ lu demander à l'organisation nañu indil photo am na ci ñoo xam ne nee nañ dañoo bëgg a maintenir la photo de Sidya à titre posthume. ah c'est waaw moom la ñu wax mais le ministère aussi à ses règles ñoom dañu ne ginnaaw il n'est plus secrétaire général véritablement ñoom nañu ko jox koo xam ni. peut-être muy photo mu porter la candidature de cette centrale loolu c'est logique parce que en réalité le ministère aussi vraiment du travail ñu ngi leen di féliciter sur l'impartialité et du bon travail bi ñu dafagum fi mu ne jusqu'à présent mhm. parce que dama élection centrale yi yombul c'est une patate chaude en réalité parce que ñoo xam ne ñu ngi fi aussi depuis ma ne la comment dire quatre-vingt-dix-huit ba léegi et ces centrale centrales bëgg a véritablement euh, euh, remplir waat am ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ pour qu'il y ait un pour qu'il y une alternance moo tax du yomb mais avec tout ça vraiment ñu ngi jouer l'impartialité mais bi nga xamee ne nag ñoom bind nañu mhm. wax nañu ñoo ñu andiwuñ benn photo ils seront obligés de bàyyi photo bi euh, bàyyi bulletin bi dem noonu sans photo d'accord léegi léegi yéen yi nga xam ne da ngeen a ñëw bëgg nekk renouveau bëgg tamit def une alternance centrale boo xam ne bii centrale syndicale yi dañuy wuutu mhm. parce que yow pour yow ñoom Mballo Dia Thiam ñoom Cheikh Diop ñoom Mademba Sock depuis léegi ñu def ñaar fukki at mbaa mëpp ko. effectivement waaw léegi ñoo ñooñu jàpp nga ne yow léegi dañoo dañoo atteindre seen sommet ba mënatuñoo am lu baax luñ fa wax nit ñi. mais euh, ñun ci àll bi lañ jógee. xam nga wax naa la ko léegi nee naa la laction action syndicale c' est de la base au sommet. oui gis nga bi ñu demee sur le terrain. mu mhm. bëri sax xamuñ sax ne élection am na. et parce que en réalité euh, foofu danaa ci xaw a jam tuuti lu ministère du travail parce que ça ce sont des élections nationales nag ni waroon na fekk mu am ay spots publicitaires. ah man fan yéen yéen a koy def wala non non c'est le ministère parce que il y un budget qui a été dégagé pour ça spot publicitaire bon peut-être que chaque centrale syndicale moom mooy def sa propre campagne utiliser les réseaux wala nga def ay vidéo ak yu demee mais dama le ministère en tant tel parce que ce sont des élections nationales qui sont très importantes au même titre que les élections présidentielles au même titre mais s'il y a budget pour ça war nañ ko mën a appliquer. non waroon nañ ko mën a def. parce que élection yi waroon nañu douze candidats yëpp waroon nañu def passage à la RTS je dana donne un exemple danaa tooñ sama mag sama grand <laughs> ma dem ba soog di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér mais dañoo dem ci école boo xam ne bi ñu demee euh, en tournée bon bi ma leen waxee ñi nga xam ne ñooy candidaté euh, donc ñu ne mais at mi ñu doon couper courant bi fii ban année la man léegi en 1992. 92 boobu Youssou Ndour sax wutal ko away way way mooy benn seen garab bu metti ba rek 92 92 am ci ku ne ma man de 92 fekk mu ma judd <laughs> waaye fi mu ne nii maa ngi jàngale après mu musul xalaat ne sax peut-être euh, ma dem ay candidat pour ces élections là pour remplir wat encore ils sont trop durés quoi pour yow donc pour te dire que nit ñi xamuñu sax élections yi koo ci laajoon ne quels sont les yi war a dem mais en réalité xam nga lu tax xamuñu ko parce que candidats yi tant que tel wàccuñ le terrain mais fi mu ne nag ku ci nekk nag yaa ngi dem nag wuti alliance parce que xam nga enseignants yi dañoo bari macha allah mat nañu plus de cent mille. mais est que yaakaaroon ni enseignants yi tam ñoom. non man xalaat naa ne dañu ma voté parce que ñoo bokk ma ñoom nekk loo mais est-ce que syndicat tamit enseignants yi gisuñu seen bopp ci centrale euh, classique yi. c'est vrai que bu ñoom nee nga duñ leen kaasal duñ nekk ci terrain bi bon. Euh, bu fekkee mais gisuñ ci seen bopp xam nga élection yi mais ñoom waxal nañ ko seen bopp. ah am na ci syndicat d'enseignants yoo xam ne ci central classique yooyu lañ nekkoon mais dañoo génn xam nga lu tax. Hmm. parce que bi ñu génnee li tax ñu génn mooy gis nañu ne ñoom. Hmm. seen taxawaay à côté de ces syndicats yi affilié wu ci ñoom dafa des. ba pare aussi encore saa yoo xamee ne ñu ngi dem ci euh, euh, les institutions étatiques et sociales pratiquement duñ yóbbaale jàngalekat yi demal conseil économique et social exemple la rek parmi tant d'autres ña fa nekk ñëpp ils sont du secteur privé il y a aucun agent de l'État bu fa nekk. nekk fonction publique. Hmm. nekk agent de l'état wala enseignant. et pourtant seen suffrage yi ñu am enseignant ya ko jox vous vous rendez compte. waaw mais xanaa yi nga xam ne ñoo présent ONU cinq centrales yi présent parce que aussi il y a Sidya Ndiaye donc amul woon dix pour cent mais euh, on l'avait repêché donc euh, au niveau du conseil économique et social man je venais en sixième position mais ces cinq ñoom exemple nekk au niveau du conseil économique et social mais tous sont issus pratiquement du il n'y a aucun agent de l'État aucun enseignant au niveau du conseil économique et social au sein de cette institution étatique. mais loolu loolu wax moo tax ma ne loolu nan la ko enseignants yi di mën a xamee ba noppi rek ci rek topp ci leen voter rek. Ah, ils ont des raisons personnelles mais peut-être secrétaire général déggoo li ma la am na ci ñoo xam seen directoire national ñoo joxe moo d'ordre mais seen base du leen suivre. ah bon waaw il faut voter utile. parce ah que élection yi ay sanction que. <coughs> li ma lay wax xam naa ko bu baax parce que gis nga ces élections là ce ne sont pas des élections des syndicats ça n'a rien à voir avec l'appartenance syndicale ce sont des élections des centrales ils vont voir les euh, les candidats ñan ñoo nekk candidat koo ci xam ne da nga nekk candidat même sa directoire national bu joxee moo d'ordre te wóor la ne yow gisoo ci sa bopp wala kii ñuy voter waxuñ la les raisons que les enseignants ce sont boo ñëwee nekk directoire national ma ne la jël sa décision te consulté woo base bi amoo seen avis yaa cay des mais ils ne vont pas appliquer cette décision là parce que élection yi c'est encore c'est tous les cinq ans parce que enseignants yi li ñu lay njëkk a wax ñii depuis kañ lañ fi ne nañ def le bilan de leur mandat et qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter durant les cinq ans à venir avant ñu lay voter ak at fi def yëpp loolu nga bëgg a wax. mais ils ne vont lii man maa la ko wax am na ci ñoo xam ne déjà seen a ngi yëngu parce ñu waree dem mouvement de grève nan la ñuy def. dañuy def ay fiche technique envoyé ko ma ne la base bi ñoo ñu joxe seeni proposition par rapport au plan d'action bu ko defee ñu remonter ko buñ ko remonter jël une décision nga xam ne le sommet day appliquer la décision de la base moo waral grève syndicat enseignants yi daan réussir mais su fekkee da nga réunir sa directoire national yow affilié woo ci centrale te xam nga ni ñii li tax ñu ñëw dañoo ñëw uniquement pour am say voix te bu ñuy dem ci instance yooyu duñ la yóbbaale nga toog ci kaw rek ne le directoire national a décidé de soutenir tel candidat te yow affilié woo fa bokk leen secteur d'activité mais quand même les gens vont se poser la question mais pourquoi pourquoi ce soutien pourquoi mu am un enseignant comme ñoom nekk candidat souteniruñ ko ñu dem soutenir quelqu'un qui n'est pas enseignant. mais yow yow yow yow enseignant nga ci coalition nga demee wala nga bëgg a dem. coalition. yow déggoo li ma wax coalition amul. waa léegi non d' accord naa ne waaw d' accord coalition amul c' central d' accord waaw fa comme dans au plan politique. waaw très bien. xam ne dañ naan coalition tel tel coalition moo amul fii fii ce sont des centrales ñooy dem en compétition. d' accord naa ci loolu. non des candidatures mais xëy na man li ma def euh, sab polisaan li ma li ma li ma bëgg wax ci ci coalition bon xëy na le mot entre guillemets mooy. am na ñeneen ñoo xam ni mën nañoo bokk ci beneen corporation professionnelle ñu votel loolu mooy li ma la gis ga élection yi. nekkul problème mu syndicat encore une fois ça concerne tous les travailleurs syndiqués comme non syndiqués. yow mii sax électeur nga bu fekkee ne seen directeur des ressources humaines bi envoyé na list yi. élection le 12 yow laay njëkk campagne pour nga ñëw votel FGT <laughs> ak tout le personnel qui parce que tous les travailleurs la même les contracteurs boo amee bulletin de salaire rek te ka xam ne man la yaa ngi cotiser IPRES ak caisse de sécurité même bi. mën naa ñëw voté si. mën nañu voté même ci EDF mais kon kay mais kon kay kon kon kay kon kay les centrales classiques. Ah. xëy na peut être dañoo benn stratégie de campagne bu am bu ngeen amul. Ah, mais peut être am nañ stratégie de campagne mais loolu lépp. pourquoi il vous gagne toujours. non mais dégg nga xam déggoo li ma la wax. pourquoi il gagne. c'est hmm. parce que tout simplement les xamuñu élection yi ils ne participent pas nga gis sax ministère boo xam ne dañ fay teg urne ñu naan lu xew fii. et. xam lu xew moo tax moom taux de participation bi faible wax naa la ko en 2017. le taux de participation était de vingt huit pour cent soixante douze pour cent travailleurs yi voté wuñu boo gisee ñuy wàcc sur le terrain c'est pour sensibiliser les agents de l'État les travailleurs pour que ñu vote pour qu'il y une rupture pour que ñu mën a renverser la tendance te message bi mi ngi jàll bu baax d' accord mais d' accord yow li nga wax ni c' est important parce que élection yi nag war naa nekk lu national lu ñëpp yëg te d' ailleurs sax loolu mooy tax mu gën a am crédibilité. Ah, ah, c' est ça alors euh, mais euh, Sidya yal na yàlla yërëm ko. Mhm. bi mu nekkee conseil économique social et environnemental yàlla dogal na génn àddina. Mhm. sur le plan syndical seen mbootaay yi ku ko remplacé. <laughs> mais loolu aussi. ah déet damay laaj rek. waaw damay kenn remplacé wu ko. xam nga eh, lu eh, eh, wu ko. parce que xam nga. dafa am ay principe yoo xam ne mooy am pour la représentation des travailleurs muy femmes yi di les handicapés et cetera mhm. gis nga euh, bu jógee ci élection yi euh, c'est le ministre du travail. Mhm. mooy seet centrale yi nga xam ne ñoo qualifié. Mhm. mu def une lettre adressée ko au président de la république parce que c'est le ministère du travail qui a en charge les organisations syndicales. bu ko defee le ministère du travail proposé ne léegi ba président de la république ne ko ñooy ñi nga xam ne ñoom la seeni central mandaté parce que boobaa secteur général central bi moom mooy tànn au sein de son organisation ginnaaw qualifié na ñan ñooy dem conseil d'administration IPRES ñan ñooy dem conseil d'administration kes de sécurité sociale ñan ñooy dem conseil économique et social ñan ñooy dem au conseil dialogue social bu ko defee président de la république moom par décret daal di nommer ñi nga xam ne ñooy représentant travailleurs yi mi ngi ci presse bi Sidya Ndiaye dafa gaañu yàlla na ko yàlla yërëm te yeexañu mhm. mais ba léegi zéro. ci li ñu gis ci à travers la presse ah, ci li ñu gis à travers la presse parce que les documents sont là bon Mballo Dia Thiam c'est un frère que je salue au passage a adressé une correspondance au président du conseil économique et social pour son remplacement pour remplacer ko. maanaam Mballo Dia Thiam Mballo daa bëggoon a jël place am mu une semaine après son décès. ci li ay ay ah ba def nañ ko ci presse bi. ay yow léegi nag le min le le haut conseil euh, euh, le conseil économique et social le président du conseil économique et social a répondu défavorablement pour dire que ñoom amuñu ay prérogatives pour euh, pour remplacer wala dugal membre conseil économique et social pour la FGTSB ça c'est le ministère du travail. qui adresse un courrier au président de la République muy jël un décret léegi nag peut-être réponse boobu bi mu tombee ci l'autre aile ah ñoom rafetlu wuñu ko moo tax ñoom ñu def seen une partie def seen pétition ne il n'est plus le <laughs> il n'est pas le secrétaire général ak yu demee noonu. bëgg bëgg a dàq bëgg a dàq mbaalo jooju. voilà c'est ça kayit moom it euh, reconnaître légitimité ñële te ñee ci li ma gis ñoom ñoo yore la signature de la FGTS parce que dërëm bu fa dugg bu génn ah, ak euh, paiement location beeg yëpp ñoom ñooy signé muy soog a génn donc de telle sorte que loolu mooy li ma la wax parce que aujourd'hui xam nga danger bi mooy une centrale boo xam ne day dem. en compétition te amul personne morale. amul amul bopp quoi tête amul bopp. ayi kooku bu fekkee ne dem nañ ba qualifié yi. Mhm. qui va porter les mandats de centrale man foofu lay waxee foofu lay waxee. moo tax problème bi te fi ne pour être secrétaire général d'une centrale syndicale mais il faut ñu tenir un congrès. mais loolu kay yow li nga war a wax kay loolu da nga bon xaw ma nag juridiquement lu ñu ci lu ci yoon wax parce que it aussi photo bi. c' est c'est pour identifier wane ne kii kat c'est la personne morale de l'organisation moo waral. toutes les centrales. mais est-ce que est-ce que il est obligatoire que photo bi da ci war a am. non c'est pas obligatoire. ah kon kay kon kon kay kon kay Alassane kon kay garaawul. mais on identifie. oui la centrale par rapport à la photo et au nom du candidat mi ngi mel ne rek par exemple fi mu ne nii lan mooy xam ne waa Benno Bokk Yaakaar léegi par exemple ki Ba moom moo moo porté la bu ñu demee élection présidentielle photo ma ci ne dëgg la du dëgg. ah pour ñu ko rek. c'est ça c'est important dañu xam ne kii mooy parler di agir au non de la centrale moom mooy responsable Benno Bokk Yaakaar kii mooy responsable boo demee ci coalition <laughs> Bougane Gueye Bougane Gueye la ñu gis photo bu ñu ko kiiyee présidence de la euh, kii euh, Abdourahmane Diouf même chose extra extra tous les candidats ce sont des candidatures individuelles seen photo dafay ne mooy tax ñu mën a def identification mais est-ce que ñoo am nañ secrétaire fu mu amee bu amoon kay aujourd'hui turam mooy nekk ma ne la ci FGTSB. waaw mais loolu mais man nag man nag vraiment nag Cheikh Alassane maa ngi may bëgg a jaaxal. mais yow lii nga wax ni lépp bu fekkee dajal naa ci menn mbooloo mbooloo moom légalul. logique pour logique. logique pour logique. dama ni la lii ma la wax newul suñ kanam maa ngi leen di ñaanal ñu qualifié mais buñ qualifié woon le combat judiciaire day daal di commencer. ah da nga leen di da nga leen topp. nga ne da nga leen le combat judiciaire kan moo koy kan moo koy déclenché. ku ci nekk parti bu ci nekk da ngay indi say argument te bu boobaa xam nga lan muy mujj am. dañuy geler les mandats ba ñoom ñu tenir seen congrès ordinaire ba fal démocratiquement un secrétaire général. mooy li ma bu ñu falee démocratiquement un secrétaire général après le renouvellement des instances. Mhm. de cette centrale conformément à leur statut et euh, règlement intérieur. bu boobaa ka nga xam ne moom la ñu fal kooka mooy porter les mandats noonu lay demee mais on ne peut pas être automatiquement en révisant des textes ne diw mooy secrétaire fi mu ne nii au niveau de la FGTS bi amul secrétaire général intérimaire la mën a am. maanaam tey ñoom bu doon wax kenn du mën a wax ci taxaw ci seen làmmiñu bopp. non non non intérimaire la maanaam c'est Sidya qui est le secrétaire général. te Sidya nekk secrétaire général d'une organisation pour. te Sidya nekkatu fi un defu ñu def nañ congrès. congrès nu mu fi amee kañ la Sidya gaañu mois de mai. mois de mai ak léegi. waay congrès amu fi dara amu fi. nu sommes là ñu ngi suivre les informations. c'est pourquoi je lance un appel à ces travailleurs militants et militantes de la FGTSB. na ñëw ñu liggéey. bu ñu paree ñu soutenir ma candidature on va aller vers une. pourquoi yow pourquoi yow jógoo seet leen yow. mais seeti mais protocole d'accord kay man maa ngi dox de. Ah, dox ci waaye mais justement wax fi à travers les mais am na ci de déglu fan yi di ñëw am na ci ay syndicats yoo xam ne ñu ngi woon foofu mais xam na ñu ne lii ñu def ay caaxaan la ils vont venir me rejoindre de. parce que ni abu seen base bi dëgërul. Ah, non non non c'est-à-dire non non ah. xamul. ah xam nañu. ok ne fi mu ne nii lii euh, folklore la ils vont venir me bu ñu paree danaa sol sama parce que ñoom ñëpp sama njaboot lañu. waaw ah, mais justement njaboot lañu parce que. yéen kay bu ngeen bëggee bu ngeen bëggee détrôner détrôner les les les centrales classiques. am na ci syndicat yoo xam ne ñu nga fa xam ne ñu ne lii jëmul kër dox nañ ci pour que retrouvaille am c'est une centrale koo xam ne deux personnes se réclament secrétaire général Moussa Sissoko se réclame secrétaire général Balo Dia Thiam se réclame secrétaire général te guerre de succession la mais en réalité Sidya ne mérite pas ça. du tout. parce que absolument parti absolument les armes à la main ñii mais ñoo fi nekkoon traditionnellement ñii di soog ñëw bëgg a la na ñële ñële ne ñoom duñ ko nangu ñoo fi nekkoon ak moom di liggéey de cool lépp loolu la ñoom ñëpp nag maa leen njaboote je leur lance un appel parce que en réalité ñu dem Sidia mhm. ñaaw na mu jógee fi ak tout le combat qu'il a mené yal na ko yàlla yërëm à tout moment ñuy utiliser sono donc bàyyi ko mu ñaan yàlla seral ay yaxam foofu la ñu war a taw mais pas mu jógee fi njabootam nekk fi ñuy tiirante ay bal à gauche à droite c'est pas bon je lance un appel ñu ñëw ñu liggéey à travers ces élections su yàlla defee ñu gagné ce sera cette victoire sera dédiée à Feu Sidya Ndiaye ñu dem vers une unité organique parce que l'union c'est des euh, l'union des grands ensembles man loolu laa leen di digal mais am na ci syndicats yoo xam ne réfléchir nañu surtout les syndicats yi nga xam ne bon am na ci ñoo xam ne du ma ko wax fii ci à travers les zones mais maa ngi waxtaan ak ñoom dans quarante huit heures mhm. ils vont me rejoindre ñu bokk liggéey et la victoire bi ñuy am incha allah sera la victoire de de de de Sidia. de Sidia de Sidia Ndiaye mais da nga mais mais Cheikh Alassane Sène wax nga léegi benn benn élément bu am solo wax nga ko deux fois ci sa ci sa kàddu yi ne même ñoom bu fekkonte ne tey yàlla dogal na ci élection yi. Mhm. ñu am représentant am 10 pour cent supposons boo defoon naa ci ci tribunal yi lañ jëm dañuy xeexi xuloo ji. mais kon kay ja. bu boobaa ma ma Maodo El ma Maodo. bulletin boo xam ne turu secrétaire général newu ci. ah photo secrétaire général lu ci ne. lu dul ab logo. kan mooy njiit li ndax mën nga ma xaw <laughs> ah, ma ko. ah na léegi bu amee dix pour cent kan mooy le ministère va s'adresser à qui. mais ñoom xa ñoom loolu. mais xam mais loolu nag moom mooy sama problème yow illégalité noo ci mën a nekkee par di persister. ñoo la ko gën a xam fop mais c'est que fi mu ne actuellement ku ci nekk yaa ngi jéem a positionné wu militant de base yi xam mhm. mais am na ci syndicat yu nekk ci ñoom xam nañu loolu man c'est une question boo xam ne j'attends une réponse ngay dem compétition centrale bu nekk am koo xam ne moo porté ah la candidature de cette centrale turam nekk ci ak fonction ak photo bi nekk un seul bulletin boo xam ne amul photo amul turu secretaire général mhm. amul fonction lu dul logo ku voté logo nga voté waaw kooku bu demee ba qualifié qui va porter les mandats de set centrale on n'a qu'à répondre à cette question ah, li nga wax nii li nga wax nii am na logique xaw ma nag. non qui va pas qui va répondre à cette question. am na bu ñu qualifié ñii ñëw ne maay secrétaire général maay joxe. kenn naan maay général maay joxe mais ministère nu muy def eh. bu ngeen ñu fonto dem leen ngeen réunir renouveler leen seen base def leen seen congrès bu ngeen defee seen congrès ba pare ki ngeen fal comme secretaire général kooku moom mooy bindu officiellement pour nous dire ñi nga xam ne ñooy représenter. mais loolu ci congrès bi sama mën problème parce que. moom laa la wax. moom laa la wax fi mu ne dans ces conditions le ministère en cas de qualification il va s'adresser à qui à kan lay waxal. parce que Sissoko candidat la Mballo Dia Thiam candidat la. ku ci nekk tu de la successeur ma ne la comment dirais-je légitime de de de de de mais yow moom tey con inconte yow kenn contesté man aw ñu amuñ problème yooyu ñu ngi def suñ tournée. FGTS a ah, amuñu problème. yéen problème bi ngeen am mooy ku leen votel nga ne. problème bu ngeen am mooy ku leen votel non amuñu problème ku ñu votel ah bon ah pour cent yombul de. yombul mais. kaay ma ah, xam El mais man <laughs> localité yi ñu dem yëpp dañ naan ñu vous êtes le seul candidat bu ñëw seet si ñu. par ah. contre ñeneen ñi fi ñëw ce des émissaires des candidats mais le candidat au niveau national en tant que tel nañ ma wax ban candidat au niveau national moo dem ci tell département. c'est le seul candidat. le terrain qui descend dans les départements keneen ku dem xamal ne da ngaa diriger syndicat de base wala ñiy yare sa syndicat de base ca département ba ñooy dem di battre campagne. c'est différent d'un candidat au niveau national qui descend sur euh, sur le terrain wàcc au niveau de la base mais ñi nga xam ne wax naa la ko léegi ils sont candidats aux élections présidentielles mais tëdduñ Ndakaaru ils veulent diriger le peuple ils veulent gagner les élections présidentielles ils sont sur le terrain ñi ngi wër dem ba le fond les plus reculés du Sénégal am seen programme mais c'est la même chose yow yaa bëgg a jiite liggéeykat yi pour un mandat mais demal ci ñoom jàkkaarloog ñoom nee naa la c'est le rendez-vous du candidat face aux travailleurs nga dem ci liggéeykat yi ndax boo demul ci ñoom nooy xamee seen tawat ba koy ba ciy trouver solution. mais da ngay dem avec sa ay logo ak sa ay bulletins yëpp di woon gars yi. le terrain. mais yow yaa ngi ci campagne ah. programme ak sama profession de foi jox leen ko. et en ce moment yaa ngi am ay ay ay ay ay ñu lay ñuy en fait ce discours bi ngi jàll ñu ngi koy épouser je veux dire. bien sur bien sûr. dañ ne daanu dajul suuf pourquoi El Hadj Maodo <laughs> ma bi Casamance laa waroon a dem de Nioro ma déplacé wu ñëw parce que xam naa. ça ça c'est la communication. voilà c'est, c'est normal mais mais ñoom aussi peut-être ñu ngi communiquer mais autrement peut-être. mais forme de communication yi moo dul benn. yaa ñoom communication classique la ñuy def ñun communication moderne la ñuy. yow dafa mel ne ba ma la déglee yow Cheikh Alassane. Uh-huh. bu ma xamee bu ma ceci bon philosophiquement daa mel ne yow da ngaa bëgg les centrales classiques. Uh-huh. je vais les nommer. CNTS FC CNTS bu ñoom moo di gërëm bu Cheikh Diop euh, ak itam bu CSA. bu euh, Jean Diouf a ko jiite woon ay temps. waaw Modou Diouf. Modou Diouf waaw alors ñooñu la. Iba Ndiaye Diadji ñooñu. Modou Diouf waaw ba après affaire yi avancé quoi. Ah, après ci la Elimane Diouf. Elimane Diouf ñëw donc bu mën a comprendre central classique yi nga xam ne depuis pratiquement fan léegi mu jege ñaar fukki at fanweer at. 25 ans. ñaar fukki ak juróom ñooñu ngeen bëgg ñu. mais bien sûr. ñooñ ngeen bëgg ñu leen terrain bi ngeen dem liggéey indi ay nouveauté mais ñu bàyyi ñu xool suñu preuve c'est ñun ce qu'on va apporter au travail loolu la ful ma ne la ba vingt cinq ans ba xam ne ma ne la commandé ñoo xam ne ñu ngi liggéey te boobu juddooguñu vingt cinq ans je bien mais mënoo ko def ci cinq ans yi à venir nañ bàyyi ñi ci des ñu xool ñoom it ñu mën mais nu ñuy def ba convaincre travailleurs yi ban leen di voter mais mais xam nga lu c'est une finesse politique non du loolu xam nga généralement li ci ëpp mhm. ci syndicat yi. Mhm. dañoo affilié wu ci centrale syndicale yooyu. bu élection ñëwee dafa am logique boo xam ne moom la ñuy wéyee yow ci man nga affilié wu centrale bi day dem compétition ginnaaw ci mën nga affilié wu votelal centrale bi. ah mais c'est pas ça automatiquement mais mooy lépp loolu la rek. léegi nag pour ñu voter centrale bi dañuy jël les secrétaires généraux de syndicats yi nga xam ne ñoo affilié wu foofu ñun leen dem leen ngeen wax ak seen base wàcc leen ci terrain bi ñoom ñu tëdd ndakaaru duñ def dara. fu jëm nañ ma wax ci candidat yi kan moo ci dem ci région yi wala département yi te nous sommes a di di jour des élections kan nañ ma ko wax nañ ma wax il y a tel candidat dem na Nioro wala dem na. Euh, Saloum wala Saloum wala dem na Kédougou wala dem na Saraya amul. ce sont am na ci sax ñoo xam des secteurs généraux des syndicats d'enseignants wàccuñ sax sur le terrain ce sont le responsables au plan locaux ñooy dem di battre campagne pour ces pour ces candidats. mais c'est le candidat en tant que tel moom kay moo war a dem battre campagne am. waaw léegi kon kay damaa jàpp na ñiy def loolu ñu leen koy def ñu koy nangu damaa yaakaar ne am lu ñu ci gis rek. peut-être na on sait jamais. dama ni mhm. dama ni mag lu mu nangu. Mhm. boo ko ko tegee dagan na. waaw boo amee ñu ko nangu it dana am ñu ko nanguwul. nit ñi dañuy réfléchir man bu ma bokkee ci syndicat professionnel. élection par exemple je te un exemple dafa am élection yu fi jiitu. muy les élections de représentativité des syndicats d'enseignants. waay syndicats yooyu bu mu amee xam nga ces élections dafay permettre ñu choisir les représentants des enseignants dans les commissions d'avancement euh, non astafurlah dans les commissions de mutation et dans les commissions euh, dans les négociations. oui ñooñu ña voteel ña leen voteel mooy syndicat seen syndicat de base kooku yenu na maana parce que ñoom ñoo nekk candidat. Mhm. les élections au CAPCD aux commissions administratives paritaires et conseil de discipline bi ñu donc ñooñu ñooy statut sur les avancements des agents de l'État de grade à grade ñooñu bu ñu voté seen syndicat bi yenu na maanaa c'est tout à fait normal ñi ci jàll jàll nañu représenté enseignants yëpp mais c'est différent des élections des centrales syndicales centrale syndicale bala nga koy voteel ñi fi nekkoon da nga naan waaw ñi fi nekkoon lan lañ ñu defal ak lan lañ am comme programme pour les cinq ans à venir foofu la problème bi nekkee mais yow xooluloo loolu nekk rek au sommet rek tu es secrétaire de syndicat d'enseignants rek aca joxe sama mot d'ordre rek au niveau de la base aca il faut appliquer il faut soutenir euh, ces centrales pour que mu am continuité ils sont là pour vingt cinq ans voté leen cinq ans encore ñu defaat fi trente ans nga defa ne base bi dañu ko appliquer ah non ça je dis non parce que aujourd'hui li tax ñuy daw daf le focus sur les syndicats d'enseignants nee naa la en 2017 soixante onze mille travailleurs ñoo voté xam nga enseignants yi fu ñu toll fi mu nii. waay dépassé nañu fi mu ne nii. non Paris ay mille à l'heure actuelle il y a. pense que fi mu ne plus de cent mille les enseignants rek peuvent régler la question. oui des mille parce que am na benn. cent mille benn enseignant bu ko wax fii. ëpp nañu cent mille. xam nañ ne ki vote ki gagne ñu fonction publique ñoom ñoo ci ëpp. oui yaa ma dégg ñoom fi mu ne actuellement aujourd'hui ku ñu voté rek la tendance sera renversée. am na ci ñoo xam ne ils vont voter utile de. ah ça n'a rien à voir avec leur appartenance syndicale ils restent dans leur syndicat mais ku ci def moo d'ordre dafa ne l'application sera automatique tu te trompes. ah bon oui. ah da ngaa kat gars yi comme ni ko xam ne dégg affaire bi. ma ne mais que ni ñëw fa affilié wu rek d' accord. wala léegi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci janoo bi ak Cheikh Alassane Sène secrétaire général bu FGTSA léegi ya une minute moo la dese loo bëggoon a wax wala bëggoon a waaw xanaa kay wax alaaji Maodo vraiment di la sant di la gërëm mhm. parce que gis nañu liggéey bu rafet bi ngay mhm. def ah dama nekk en tournée nationale mais en réalité soo gisee euh, de de Nioro laa écourté sama séjour ñëw répondre à votre invitation. Mm parce que xam naa ne. janoo bi dañ koy déglu. dañ koy suivre au plan national et au plan international. surtout waaw di la xamal ne mhm. en tout cas vraiment di rafetlu lépp. élection yi nag ah fas na yéene am incha allah le 12 décembre. oui ah di demander aussi travailleuses yëpp ak travailleurs yëpp ñu voté ci ku toog naan sama yoon newu ci ah wax dëgg yàlla na nga xam ne daal ñi fi falu quel que soit le pourcentage même bu fekkoon taux de participation bi 2 pour cent la it ah ñooñu ñoo fi toog pour un mandat de 5 ans. je pense que véritablement du ma ne ñi fi nekk. encore nekkaat fi ay vingt vingt cinq ans. nekk depuis quatre vingt dix huit avec les enquêtes sociales nekk fi élection deux mille onze nekk fi élection deux mille dix sept boo ko cumulé muy vingt j'espère que véritablement servir nañ ci li ñu mën lépp le monde du travail. d'accord par rapport à ça donc je pense que il est nécessaire et fondamental ñu dem vers un changement c'est la raison pour laquelle fu may terminer maa ngi sant liggéeykat yépp ah, ak boor booy mën a nekk ah, xalaat ne aussi bu ñu demee incha allah le 12 ah ils vont soutenir ma candidature la FGTSA pour qu'il y ait un renouvellement un renouveau syndical. jërëjëf Cheikh Alassane seen seeneen bi xam naa ne ndekki rek la fi indi woon waaye euh, fex nga ba génn ci rek <laughs> d'accord mbokk yi kon incha allah beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen gan ñu ngi leen di ñaanal jàmm jërë ngeen jëf merci